laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah rasulullah أإيوانك سرى هل دهاك وأنصرا بروز النبي إن كسرى تقهقرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ak Kisraan Sirwaan jaa Muhammadun bi aayaatihi al-kubraa wa qadruka al-absaraa laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah إنك لمذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسمون فلما ذأبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابات الجب في غيابات الجب وأوحينا إليه لننبئنهم لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أقرباءهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتبع وتركنا يوسف عند عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت أنت المؤمن لنا ولو كنا أكسرا وسروان جاء محمد وهل قطع أنهايا أم هل تفجرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كسرى أنو سروال جاء محمد وهل قد أتاك الموت بذان مكبرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sant yàlla ñun ñëpp delloo yàlla njukkal gërëm sunu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima ñu jullee ndax lu jun njaaga moom mooy njaag gannaaw sunu ah, fi taxaw nii ñëpp lu baax moo leen fi indi ak bokk si bokk ak saamu si dund kon te loolu yëpp kenn ku ci nekk am na koo matal digganteem ak moom ñenn ñi am na ñoo manqué seen diggante ak ñoom mais su bis bi xasee xew loolu yëpp dañ koy effacé ñëw bàyyi seen ittee ñëw teew loolu yëpp baax rek mu leen tax ñëw ak jokk si mbokk ak fàttali bi déew kon loolu su amee ñëpp ñu bokk sant yàlla ci loolu ci foofu mooy ah maire mii yàlla moo ko boole ak Cheikh bi ba mu nekkee gannaaw raay ba agsi fii te liggéeyal na Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bu jot xam ne ku ko am tey da nga koy tiitaroo ndax liggéeyal wala yu yàlla ni mu yow fa yàlla kenn xamul nu mu toll te na suñu bi ñu dikk ñu xamante ginnaaw raay ba tey musul yoppi musul des ginnaaw musul tànkam bi ndax bu ñu daan dem daayira lu mu sedd sedd sax vraiment wax ma yaay ci kër lu mu sedd sedd lu mu tàng tàng ak lu mu guddi guddi ñun ak moom ba moom moo ñu daan magal ci suñu ci biir xale yooyu kon loolu ñun duñ ko mës fàtte ba àdduna tukki jamono dara xat. waaye jamono bu nekk sama xol nga sa tënk ci yow ndax lu mën a xewit fàtte démb ah bi Cheikh Omar jógee foofu it ñëw topp si fii dafa mel ni dañoo dëkk ci gannaaw raay fekke ko yaay yam fa amoon ak mbokk yam fa amoon xaalis yam fa amoon ñëpp tey bañ ñëwee fii loolu de fekk si waat keroog ma xale bi di introsé maa ngi koy wax ma ne ko sama diggante ak Cheikh ñu yàlla def la am na ñu ma bokkal ndey am na ñu ma bokkal baay ñun ñëpp samay xarit lañ tan nangul nañ ma lépp loo xam ne yàlla def na ko sama kaw ba ci suñu mag gii di Cheikh Diop keroog rek ñu ngi koy waxtaanee fële bi ñu demoon man ak Cheikh Omar ak moom boo wax ne moom de lim am mooy li gën jafe ci jamono nekk mag nangoo topp topp loolu mbooloo muñ dem bu ñu waxee danañ ko ci seet suñuy mag ak ak maam tuddi Diop mii noonu kenn ko ci gis rek nangu naa si lépp dara jaax topp sa morom loolu foofu ma seedeel ko euh, ñii nii ci kanam mbokki Cheikh Omar ak ak ay xaritam ba ca topp mooy lu doon lim képp koo xam ne seq naa Cheikh Omar wala ñun fii la ñuy yëngu maire ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi nii teew ak maire Guèye maire Guèye benn nga xam ne ñoom bokk dëkk Cheikh Omar fii ñoom ñëpp. amul kenn ci ñoom koo xam ne des na ginnaaw ak ñu nga xam ne ñoo nekk gannaaw raay lépp lu Cheikh Omar xewle danañ bàyyi seen itte yëpp ñëw teew loolu nag ñun amul seen fay liñ mën mooy ñaanal leen yàlla lépp loo xam ne yàlla def na mu nekk seen xol yi muy ay mébét ci ay aajo ki jàngoro yàlla dafa leen fajal leen lii du gulet at bu jot alhamdulilah day gën a yokk yàlla na gën a yokk meer ba loo ñu bëgg bëgg nañu lu ko raw ndax lan Baye Niass rek moo tax xam nañ ne toppewoo ñu dara lu dul Baye Niass ñi nga xam ne moom lañu seq ñeneen ñu ci topp yi toppewu dara lu dul bëgg lu baax ak di ko sàq di ko xencu si ci li nga xam ne mooy mbiram yàlla mi nga xam ne moom lañ jëlee ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko déwén loo xam ne nit dugal na ko ci ci dërëmam wala ci coonoom yàlla gis na ko yàlla na ko yàlla fay lépp lu dul lëggéeyal yàlla lëggéeyal yàlla moo ko gën te lii ci lëggéeyal yàlla la lëggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gani yonent ñoo fi teew nga dem sàkk sa sa sa sa ñam ñëw indi jox ko loolu moo gën julli moo gën lu jant bi di xëy di tiim suba ba kon loolu na la leer ne da nga koy gën a mën te njaboot itam dañ koy gën a mën yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla barkeel ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp bàyyi ñu kenn suñuy mbokk ak ak ñu nekk ñu nekk ñëpp ak ñu fi nekk bàyyi ñu kenn waaw gàmmu gi nag kon ak isra anu sirwaan jaa muhammadun yuratilu zikran mun ziran wa mubashira لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد سجد المحبوب لله ناطقا وقد أنبأ الكهان ما كان مضمرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على نور الإله الذي قبات بأنواره أنوار كسرى وقيصرى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام هلا من جاء وهو بمكة بنور به إيوان كسرى تكسرا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على سر الوجود ورمشه فلله ما أعلى وأغلى وأبهرى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله nit ñi nga koy bànnee mooy ñii ñu ñëw teew ba nit ne ko kontaan naa d'accord naa ñu ñëwul mën na yéene yéene bu waaye ku teew mën te yem ak ci yéene yéene yéene rek waaye yàlla lay fay jëf lay fay yéene waaye soo yéenee jëf ñu lay fay moo tax ak yéene rek te bés bi bés la boo xam ne bésu nangu ñaan ndax bés la am ndigal saa ko maa ngi koy wax euh, nit ki léegi dañ ko ijaazal seexal ko loolu ci yoonu wax seex su dee si suñu yoon dañuy wax mu xaddam léegi nag nit ki suñ ko mu xaddamalee dañuy laaj est-ce que ki ko jox mu xaddam bi jiital ko may ko may ko may ko ndigal est-ce am na droit. ci mayam ndigal pour ñu xam ndax est moom valable na reconnaître nañ ko ci système bi nga xamante ne nekk ci nga xam ne ci Ibrahimiya mooy Ibrahim bi nga xam ne euh, jokkuwaay bi mooy Cheikh na Ahmada Tidiane Serif faydu la boo xam ne Cheikh na Ahmada Tidiane Serif moo ko déclaré woon moo waxoon ne faydu dina ñëw waaye ci jamonoy jamono bu mu rànk lay ñëw waaye ci jamonoy xat xat lay ñëw jamono la boo xam ne ki muy ñëw nit lay doon koo xam ne bëri ay tukki lay doon waaye kooku noonu dana yóbbu faydu bi foo xam ne a ah, tariqa tijaan àggu foon te moo ko fay yóbbu Cheikh Ibrahim Niass nag bu ñëwee faydu boobu nag yu bëri am na ñu ko jëkk a njëkk a oote même euh, Cheikh Omar oote na ko ba demee ci rima mu ko fay wax oote na ko waaye gannaaw bi dem na ba xam ne moom moomu ko mu ci mu dëgg ne xam ne moomu ko euh, am na ñu bari oote woon nañu ko gannaaw bi dem ba xam ne moomuñu fay lu euh, seen taxawaay ak seen doxali tax firi na seen ñàkk moom ak faylu bi waaye yemuñ ca ñoom seen dim bopp yaxal nañ ñàkk moom ak faylu bi waaye Cheikh Ibrahim Niass bi ñu ñëwee mu déclaré ne moom mooy borom faylu bi yii Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bu waxoon ndawan lay nekk barab bi feeñ nan yi feeñee nañ ko tëralee yëpp daje daje ci Baye Niass loolu nag su fekkee ne yàlla daf na ci mboole nga bokk ci kër googu ñu ne yow cheikh nga dañuy seet est-ce que loolu oote reconnaître ko ci foofu nga léegi nag su fekkee ne loolu am na reconnaissance am na d'accord nañ ci ne yow seexal bi nga seexal dëgg la kon dafay mel ni moom faydu bi moom moo yor message am di ko jàllale. léegi nag dafa am loo xam ne ci zahir la zahir ak baatin bokkul zahir mooy loo xam ne. ki am xam-xam ak ñàkk xam-xam ñoo ci bokk yem soo xoolee rek da ngay gis comme man ni ma koy mais baatin nag mooy loo xam ne dafa taxaw gis ko am lu ci comprendre ak luñ ci comprendre lul liñ ci comprendre la ñu ooyee baatin waaye fa yaa ajaban min baatin fa huwa zaahiru waxtu woo demee ba baatin féyeeku ci yow rek nekk zaahir zaahir rek lay nekk kon du mun nekk lu dul loo gis te xamoo ko ñu xamal la ko loolu mooy baatin li nga réeree nag mooy baatin léegi bàttin boobu nag nga xam ne yàlla daf ko amal moo ëpp doole fukki yoon zahir ndax zahir ci kaw bàttin rek day tënk bàttin moom mooy contrôler mbir li ñu am ni nag nekk ci di ko dund mbira bàttin moo tax Cheikh Ahmad Tidiane Chérif indi indi tariqa Tidiane bi tariqa bii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko jox Cheikh Ahmad Tidiane ci loo xam ne nekkul ay nelaw mu nekk lu wér Cheikh Ahmad Tidiane keroog ba ko yonent bi joxee fay tariqa ko bàyyi mboolem sëriñ si nga jàpp ci man man maay si sëriñ tey te booba fekk na jàpp na wir da xalwati jàpp na wir da sazali jàpp na yooyu yëpp Cheikh jàpp na ko waaye lépp lu taxoon mu jàpp ko pour am li nga xam ne moom mooy lii tey mu am mooy tarix Tidiane ndax da ko doon wër Baye Niass nag wax na mu ne Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif jàpp fu ne dem naf ci àddina fu ne ut fa sëriñ pour ut ndolloon mu ne waaye Cheikh Ahmad Tidiane Chérif am na taalibeem boo xam ne fépp fu Cheikhu Tidiane dem dem na fa fu mu fi mës dem ñooñu ñooy jóg di jàpp ci moom waaye moom jógul jàpp ci kenn xam nga ñaari may yi bokkuñu donc Cheikh Ibrahim dafa wax ne moom dem na ba bés mu taxaw mu vérifié boppam wax ne ana lan la ma Seexu Tijaan gënee lan ba yàgg mu ne xaatiram wax ko na ko waa situtu gi rek maanaam jokk gi nga jokk ci moom la la mën a la rawee lu tax parce que yàlla dina may nit may waaye foo mu am ko jaare nit dana la mën fekk li nga jaaree ci moom la la mën fekk mënu waaye li nga jaar ci moom la la mën kon foo nga nga nga sàmm mëneen boobu kon nag Cheikh Ibrahim Niass ci faw doom ay taalibeem lañ gi ci moom moom moo bàyyi moo wax ne ci euh, sëñ Mbaye Niass moo wax ne kanam Cheikh Ibrahim Niass ñun xamuñ ku doon góor ku yàlla dimbale lañ xam ki doon góor nag mooy ci dem jàngal téere yi jeexal na xam-xam naan wala xeeti xam-xam yi soo ko taxaw nekk borom xam-xam ñu reconnaître sa xam-xam ki yàlla dimbale nag yàlla moo lay xool rek na ne ko libéré su dajee borom xam-xam bi du d'accord parce que lay gis ne kii kat la mu waroon a am pour am lii dafa waroon a def teg étape jaar si jaar pas def lii mokkal lii xam lii soog a ñëw fii waaye fekk yàlla defeewut noonu yàlla ni mu ko neex rek lay doxale ñun nag ci lii ñu nekk muy fay du chef daahib bi dañ ci yëngatu te xam nañ ne Baye Niass rek la yàlla may muy maye ñun loolu leer nañu parce que dañuy wax ne saf loxo ca kala ca kala xaabam ñii suñu ay mbokk murit lañ samay xarit lañ. def naa benn bés ci seen jotaay maa ngi bu ñoo ànd ñu fekk fa euh, benn politicien bi tuddee mu wax ba mu waxee ba pare ma di ba jël kàddu wax ci Baye Niass parce que nit suy wax day wax lim namp ci kim ko nampee rek na ko war a wax waru koo waxee feneen soo ko waxee wala ngay tiwisi te ci toog fii di di di di reconnaître may keneen loolu njaalo la jigéen su xoolee taaru beneen góor mooy na jëkkëram hmm? taalibe tamit jabar la ci sëriñam taalibe tamit su mooy xoolee beneen xam-xamu sëriñ su dëgg reconnaître ne beneen xam-xamu beneen sëriñ ma ngay mooy mooy mooy mooy sëriñam kon nag amul droit xam kenn kenn lu ko yàlla may lu lu yàlla may may waaye nag ci xàq xam-xam ci aadaabu suluk loolu mooy dëgg nag su dee ci maslaaxaat ak diinaat bi islam dañuy wax ne yàlla may na ko diw yàlla may na ko diw kat yàlla may na ko mais dëgg-dëgg yow sa intérieur maye ak waa ji li muy moo am ci yow moo am ci keneen moo tee nag maslaaxa dina am ci suñu diggante ñun ñëpp mën a nekk waaye Baye nag yàlla may na ko may koo xam ne yàlla Baye rek la ko may lu tax yàlla moom rek la yàlla may Baye rek la yàlla may ci àdduna mu xam yàlla di ko xamle xamal la yàlla nga di ko xamle nga xamal keneen yàlla mu di ko xam le nga xamal kooku yàlla mu di ko xamle keneen xamal yàlla mu di ko xamle tewut ci kenn bàyyi am na ñoo xam ne danañ xam yàlla xamale waaye ki ko xamal du ko xamal am na ñoo xam ne danañ xam yàlla te ko xamle am na ñoo xam ne danañ ko xam danañ xam yàlla nga xamale ko kuy ko dem xamale ko foofu lay yem dootu du law waaye bàyyi nag tey kum jàpp rek xamal la yàlla may la ndigal kum neex nga xamal ko yàlla parce que xam yàlla bàyyi na si rek la ko yàlla may nit nag teew nit ñi njëkk ñi danañ xam yàlla ndax tey booy dëgg ñu ne diw borom alal la day fekk mu nekk nit koo xam ne dafa am ay milliards mais ñu am ay ñu am ay ay ay cent mille ak deux suñu wax borom xaalis mooy ki am ay milliards nga xam ne lim ci am amut lim kooku la ñuy wax borom xaalis mais terew ko am dërëm borom xaalis na donc ki am yàlla borom xaalis la ki xam yàlla boroom xam-xam la ñëpp ñëpp borom xam-xam lañ amul kenn ku ci nangulut ak mayam ci yàlla waaye nag nit ki su demee bay tagg nag bay kañ nag bay bëggee sëriñam si si bésam nag ah, nit ñi nañ ko nangul xam ne kii dafa daal jël ci sëriñam ah loolu nag loolu moo ñu dal ci bàyyi ñun xam nañ ne Maam Alaaji Maalik yàlla may na ko toog di ko wax moom wax na Serigne Touba fi wax yàlla may na ko fi dox am na <laughs> ku ne xam na ne ñooñu leen yàlla may kenn ko wéret waaye nag suñ demee bay nattale eh, ñu na dañuy nattale ñu jël ay kor buum di ko nattee wala ñu jël kaas di ko nattee wala ñu jël paan di ko nattee xam nañ ne li yàlla jox baa jox ko kenn ci saahir ak ci baatin la mu saf ko ko ma te xam donc kon ñi ñi nga xam ne nag yàlla may nañu tawféex ñu ñëw ziyaara si boo gisee ma waxee nii dama bëgg ñu xam ne ñëw gi ñëw fii daf koo jar. daf koo jar te jar naa ñëw man nii ngeen fekk fii xam naa ne su dee man dong jaru ndax man awma dimension bi xam-xam waaye dañuy wax ne jokk ci ko jokk jokk la safara tey boo jëlee safara ndox teg ko ci kawam bàyyi ko ab diit safara bi safara bi nëngoo ay mbiram rek gaa yi génn ci kenn bañ ci rax kenn bañ ci bokk léegi léegi soo toogee ab diir boo dikkee ci ndox mi da fekk léegi te nga xam ne am na lu mu jokkoo safara ah loolu nag moo ñu dal ci kër Baye Niass suñ Baye nag wàllu yàlla la borom xam-xam la jokk waaye moo nekk aw waaye yàlla mooy ñu wërsëg mu jokkoo ak Cheikh Ibrahima bañ bañ jokkoo moom nag ab taa ab diir rek am am lay tàng ci waaye tàng ci ñu ne moo tax fii bésu nangu ñaan la ah bésu pajukaayu aajo la te loolu dëgg la. ndax ni fi fii ren ren mooy vingt deuxième édition vingt deuxième édition ñun ñu koy taxawee du ñaari fan suñ génnee benn deux ans ci say at yaakaar naa li des yow du bëri 97 hmm? lañ commencé organiser programme bii ca Dalifort bés biñ ko njëkk a organiser kii nii fekkee na ko ñu wala laaj ñu ñu ma daara jeeg mais fekkee na ko ñu ñoo bokk fanaan ci guddi ba bët set muy 22 édition ren su dee ci su dee ci Dalifort su dee ci ginnaaw raay ren mooy 16e édition mais bu dee ci yoon dëgg-dëgg ren mooy 22e édition ci gàmmu ren gàmmu tey te yëpp ànd na ak ndigalal Cheikh Ibrahim ndigalal Baye Niass nag ndigalal yàlla la moo tax képp koo xam ne nekk nga muqaddami Baye yàlla may la tawfiix nga nekk taalibe Baye nga teel la ta digganteeg yàlla nga ànd ak Baye Niass yow loo wax Baye ko wax loo def Baye moo ko def day fekk nga ànd ànd ak mbañaas ci li nga xam ne ci la nekk moo tax ñeen ñi ñëw di la bàyyi waxoon rek laay wax ñëwoon ngeen fi daaw fekku leen ma fi ngeen ñëw fi fekk nekkuma fi yàlla fi nekk man ñii nekkuma fi bàyyi fi nekk su ngeen ñëwee siyaara ngir yàlla ma ñaanal leen yàlla yàlla dafay faj seen ay aajo xam nga tax am na ndigal ci def nii dama bëgg ñii ñëw di ziyaara si bu ñuy dem yëpp yokkute yëpp ziyaara ndax bàyyi moo na ziyaara fala budda ziyaara boobu nga xam ne mooy ndollal bàyyi mu ne ziyaara yàlla rek yàlla dana la te ñun ay mbokk lañ ay mbokk jullit lañ ay xarit lañ ñii dañuy organiser bés seen bés soo ci demee soo ci jógee rek da nga gën a jàpp sa sëriñ da nga gën a fonk sa sëriñ doo fa dégg lenn lu dul sëñ Tuubaa yaa ngi dégg dañ koy wax ba Moussa Ba ma ne ñii man dama leen a faa ma ne ma dama faa leen pourtant yaa ngi yaa dugg na Maroc au Sénégal mais dañ ko dañ ko dañ si sëñ Tuubaa A ba Z loolu mooy bëggee ak dëgg soo bëggee sa sëriñ doo gis keneen xam nga lu ma la donc nag bu ngeen ñëwee siyaare si fii man sama xool dafa sedd parce que gis naa ne nag mu mu reconnaître ngeen bés bi ndax kenn ku si nekk si yéen am na itte kenn ku nekk si yéen am na soxla boo xam ne waroon na ko mën a doxi waaye mu bàyyi ko ñëw ngir yàlla bàyyi gën gën ngeen ko bàyyi ñëw ngir yàlla yàlla ko yàlla def mu nekk ngir yàlla yàlla yàlla faj seen xaajo yi yàlla yàlla nangu lépp loo xam ne ñaan nañu ko